Yeah! parti bii. damay ñaan suma mbokk PDS yi ay waxal waay. kon li beneen yow. am ci kuréel maa ngi leen di guddinal guddina

vingt mille francs jëlal yow yaa ko moom mais ngel la boo leen demee incha allah ca bureau de vote ba xàmmee leen bu baax bii am na bii mooy yeewi askan wi bii mooy yeewi askan wi defe naa fay bëgg cere suñu coordonnateur bi fii dañ may fàttali ni novembre 2018 lañ fi gëjoon ci suñu tournée bi ñu doon def fii Kaffrine diggante boobu ak léegi nag lu bari jot naa xew ci réew mi mbokk nganda xam ngeen ñi ñu seqal mbir mi dañuy ay yàqkat ايضا موكب gis ngeen loolu ñoom gëm nañ ñi xam nañ ñi dëkku taax yi nekk fële li ñuy wax les capitales régionales li ñuy wax les grands pôles urbains ñoom xam nañ ni foofu mënatuñ fa am dara moo tax seen i pexe yëpp jàpp nañ ni ci zone rurale yi mooy ñëw ci kaw gi yaakaar ni xaalis bi ñu sàcc ci alalu é mi impôt gi ngeen di fay tous les jours impôt boobu dama bëgg ngeen comprendre li ñu gis ngeen euh, gis ngeen politique rek wax ñu du guddi waaye dama bëgg ñu comprendre ante di nga politique bu ñëw ngànde fii taxaw ci digg penc bi wala dugg ci kër di jukki di joxe bu laaj bëccëg bu laaj guddi xamal ni ab sàcc la lolou dañu bëgg askan wi ñu dëppoo ci benn yoon doo dem benn réewu europe wala amérique wala japon ba gis homme politique buy dugg ci kër yi di joxe xaalis lan moo tax war a am suñu réew yi xam ngeen ñuy xaar ci homme politique mooy mu am gis-gis am programme bu leer nañ ay loxoam set wecc ba pare mu jiital bëgg réew mi ci bëgg boppam jógee ci homme politique nga jox waaye homme politique bu manqué loolu bis boo ko joxee réew mi ay mbokkam ak ay jege ñaaram lay njëkk jël teg leen ku ne ñu jox la foo amee ay milliards bu def jël tubaab bi dagg réew mi jox leen waa réew mi continuer di souffrir fii wala ñu nekk gan seen biir réew moo tax bu ñu bu ñu jóon cinq wala dix mille wala sax cent mille francs dara mënoo ko am yéen ndaw ñi mënoo am liggéey moo tax nag Macky Sall ak ñi mu àndal waaye ak jooju ñuy tudd léegi man dama ko tudd ndax du sama naaw la ci politique ñoom dañoo amul orma ak wér ci nit parce nit boo ko wégee nit boo ko wégee doo ko xool jàpp ni war nga koo mën a jënd comme kuy jënd xarum tabaski nit boo ormal ak boo wég boo koy dimbale ngir yàlla koy dimbale waaye li ñuy xaar ci homme boo bëggee dimbale peuple bi mooy fexeel ba alalu réew mi des ci réew waaye ñu fexe ba kenn du ko sàcc dugal ko ci ay compte à l'étranger ñu séddale ko ci séddale bu jaadu ba kenn ku nekk jot ci wàllam loolu la moo taxit nag Macky Sall ak mu àndal dinañ xam ni waa kaw gi gën a yeewu fuuf loolu nag pour ma pour ñu dañu sonn waaye dañuy xaar ba ñu ne des nañ ngir yàlla génn leen massivement ngeen voté waaye xam ngeen bëgg réew mi ak bëgg jëlee fi firaaw na moo tax bëgg fee jëlee firaaw na moo tax ñun ñu am lu ñu nangu bàyyi waa wàllu bu am Ablaye Wade am lu ñu nangu bàyyi ñu dajale loolu yëpp pour boole suñu doole pour jëlee fi Macky Sall définitivement. moo tax ngeen mën a am moo tax ngeen mën a nga xam ne wàllu moo ko dugal ci liste bi am Sinna mii nga xam ne ñun yi ñoo ko dugal ci liste bi waaye bu ngeen demee le 31. bu ñu leen juumloo de du bu leen ko laal du tee wallu bu ko kenn jël dugal ko ci urne bi du tee yeewi moom ñuy dugal ci urne bi bu ko sànni ci urne bi woteel nga doomu Nganda woteel nga yeewi askan bi du tee bi nag yéen ñëpp xam ngeen ko mooy binaire bi rek suñu def dafa leer moo tax suñu teew leer tànn waaye biñ ko weexalee ba noppi dañ ci boole dara xam ngeen couleur verte mooy couleur gàncax mooy couleur espoir mooy couleur naataange moom mooy bulletin Yewwi Askan Wi mu am lu ko gën a yombal nag ndax Macky Sall bi mu tappalee ànd ceeg Antoine Diome ak conseil constitutionnel ba ne suñu liste titulaire ñun génne na ko conseil constitutionnel dellu si waat di ceefaar mi lu ne daj na ko ci conseil constitutionnel delluwaat ne ñun man mii Ousmane Sonko sama photo biñ ko dugal ci fii xam nga ragal nit ba ragal photo maa ko dawudi dund yi nga xam ne am problème mu gis bu ñu duggee ci du ma defal aw askan lu mu mënal boppam gis ngeen ni ñuy roy ñi ñu ñee ba tax suñuy doom di jël gaal naan dañu dem foofu ñoom ñi ci ëpp ci ñoom sax gëmuñu yàlla waaye xam nga lu ñu gëm ñoom mooy ñoom ñoo war a mënal seen bopp ñoo war a defal seen bopp yaakaaruñu keneen ku dul seen bopp bis bu ñu ko gëmee ñun Sénégal te gëm naa yéen léegi gëm ngeen ko ndaw xam ngeen kon nañu def li ñu war ñun yàlla mottal ñu xam nga li ñu war lan la def Sénégal dafa am occasion boo xam ne du ma ne amuloon depuis indépendance de ndax Mamadou Dia jaar na fi Cheikh Anta Diop jaar na fi ñeneen ak ñeneen jaar nañ fi ci ay mag ñu baax waroon mën a defar réew mi waaye tey dañu am beneen occasion te nag ñi ko bokk ñëpp nag ñi ko bokk ñëpp boo leen jëlee kenn ku nekk xam nga ni kii rek moom rek.

defar ko kon loolu mooy enjeu bi ci may daanele bu ñu joxee majorité Yewwi Askan Wi ak Wallu Macky Sall dootu fi tudd troisième mandat te nag troisième mandat dañu mandat déedéet du troisième mandat ko fi tere li ñu war a mën a musal ko bëggee forcer deret dina tuuru Sénégal ñaanuñu ko yàlla boo moytuwul bakkan dina rob Sénégal ñaanuñu ko yàlla am na lu ñu mën fenkal loolu yëpp mooy le 31 juillet génne leen seen carte yi suñu yaay yi suñu papa yi waaye yéen daw ñi surtout faveur dem leen ci bureau de yi vote leen waaye toog leen ngeen sécurité vote yi 18h30 ñu ko ñu wàññi bulletin yi Macky Sall amal ñu réew mi.